li safinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna li safinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna ñu ngi ak sëriñ Ndindi sëriñ alhaaj ñu ngi lay nuyu baax de mel ni teewlu nga waxtaan wi nga xam ne sëriñ Mountakha Mbacké ba def na ko ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñoo di borom xam-xam yi tey liñ la njëkk a laaj naka nga dundee li nga xam ne moo di ndaje mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Euh, ginaaw bu ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaanal mu defal ñu tawfiq euh, li ñuy njëkk rek moom mooy di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu wone kiimaan mu defal ñu kiimaan ci dundug mu Muntaqa euh, kiimaan koo xam ne muy dund guy landi gudd fan lool te wér lool bali mu yéene lépp mën a sotti ginnaaw loolu nag ndage moom képp ku fi ñëw rek ci am yëg-yëg say dundu jëriñoo ngi fi. Eh, sëriñ bi insisté na lool ci wàllu xam-xam nee na liggéeyal sëriñ Touba radiyallahu anhu yaatu na lool ay wàll yu yaatu la yu bokkul waaye li ci njëkk ca mat a gët gën a jox yitte moom mooy wàllu xam-xam mu ne nañ ko yitte woo nañ yitte woo ndaw ñi taxawu leen yar leen jàngal leen loolu nag wane na ne moom ak dundam gépp ci la ko fa yéene def eh, di wax ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne naalu Cheikh Abdoul Ahad wa moom la fa yéene mott li ñu ñaanal ko yàlla na ko àggale ni nga xamee ne la ko bëggee woon dëgg-dëgg kon képp ku fi teew rek xam nga ne xam-xam lu am dayo la xam-xam lu am solo la na ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu joxe woon yitte na ko joxe woon euh, ab dayo ci am njàngaleem ci am mbindam ci léppam ci aw yarinam Cheikh Mountakha euh, fedd li war na ko lool ni nga xamee ne njabootu Serigne Touba gépp ci lool lañ mas a nekk waxtu nekk. mel ni tamit euh, sëñ bi euh, mu ngi waajal li nga xam ne moom moo di tegu xeeru université bu gën a euh, université bu mag a mag fii ci Touba Mbacké le 5 décembre te dafa mel ni ni nga xam ne noonu la junjee xam-xam université boobu tamit xam-xam lañ fay jàngee mu mel ni dafa def benn link entre ndajem tey mi ak li nga xam ne moom moo di tegum xeer googu. waaw ndajem tey mi dafa mel ni ki ni Serigne Samb bu soo waxee eh, bu ma juumul mooy juróom-ñaareelu yoon mu di ko woote woote na ko juróom benn yoon ci nekkul xalifa Euh, la ko taxoon di woote it moom la waxaat tey ne moo ko tax di woote ca mooy mm, euh, dajale borom xam-xam yi kañ leen euh, sant leen sargal leen tey nag looloo ko tax a woote waaye yàlla dogal nag mu woote ko ci tey nekk xalifa Serigne Touba radiyallahu anhu ci jamono jooju nag mu fekk it mu nekk koo xam ne am na naalu tabax université jàngukaay bu mag boo xam ne ne na day jolli fii ci Touba ci àdduna bépp di ko seen ñaar yooyu nag tombe juróom-ñaareelu yoonam mu woote ko euh, tombe ak loolu moo waral ñu gën a xam ne xam-xam moo ko mas a ñor guddi ak bëccëg kon loolu li ñu ciy yéegee rek moom mooy ne euh, sunu yaakaar gën naa dëgër yàlla na yaakaar yëpp sotti yàlla na ay mébétam yëpp sotti boobaa kon ñu ñëpp danañ gis njëriñ bu baax a baax jërëjëf baax na jërëjëf sëñ El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi ci réaction bi am na solo lool xam naa rek mbokki téléspectateurs yi ñu jëlaat yeneen réaction yeneen kilifa yoo xam ne ñoom it euh, teewe nañ li nga xam ne moom moo di euh, ndaje mi booba léegi muy ndaje borom xam-xam yi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir woote woon na ko li sadinatan bikun lil janna min daari minan yaatal li sadinatan min daari minan yaatal minna